yaa baax yaa gën yaa ris yaa mën barke yonent bi kenn du yow aawa yaay aawa yaay aawa yaay mooy suñu aawa mooy suñu yaay aawa yaay aawa yaay aawa yaay aawa yaay ñamal leen daal laa bëggoon nga demal ma kër yaay jeew soo yeggee waxtaan ma ak ndeyam waxtaan ma ak moom xamal ni ko nag jeew mi jàpp lu ma ko dara lu len lu ma ko jàppal gis nga lii nit ñuy wax ni gaw ci leen leen leen te leen na ma ci intéressé wu ndax bëgg naa sama jabar te su ma sañoon mu ñëw fii sama wet fi mu toll nit ñaa ngi wax ku nekk ngi wax ku nekk ngi wax waaye man xam naa sama jabar lima ma daj ci jeew man nii wax gëwuma ko li ma wax ak ci sama kër ma teewaa sama jabar ndax dama ko bëgg bëgg naa jeew lool laay caam xam naa ne dangaa bëgg jeew gis nga coole li mu bari bari bari bari bari lépp yow doo ma la concerné ak sa jabar ci lu way wax na gis nga wax ji nga ma wax laa toogoon rek di xaar bëgg naa faa dem pour jëli ko mais xaw ma yow fu la wax ci toll. Hmm. moo taxoon mën a tekk rek di la déglu comme nag wax nga ak man jeex na tànn dinaa fa dem dinaa waxtaan ak moom waxtaan ak yaayam. alhamdulilah xam naa danga koo bëgg lool. Hmm. ba tax na dama koo def comme doom juma ma bu ñëwee ci kër gi hmm. dinaa ko boot dinaa ko roggant dinaa ko bokk dinaa ko yenu dinaa ko uuf. kontaan naa alhamdulilah. te gis nga ni kami. ah makal ma xol mi da cee sedd guy. ko tool ma kàlla. macha allah. xool fu ma toll jël cuuraay ji. man kay cuuraay may xëy nekk ma jaaxal nag. bëgg rek bu delsi. cuuraay ji sax xam nga de. jeewa jeewa jeewa jeewa de. pëj jeewa jeewa noonu laa ko jàpp. gaa nañ ñëwaat. jabar xale. wallaahi wallaahi da di mau moom moom diir bu dina mën na ñibbisi ci biir néegam bi. lii moo tax mu bëgg la. yàlla baax na mag daf koy daf koy. amul mm. maay sa yaay. maay sa mag maay sa lépp. Oh. moo tax duma la seetaan benn yoon. ma mm. sa xel dal. Ah. ay xuraat bu la amul woon. gisoo kenn de man nga gis. maay yaay maay lépp. alhamdulilah. laa fen wala dama la mës a wax lu amut ba munoo gëm li ma la wax yaay yaay bu ma ñëpp bàyyee yow tamit nga bàyyi ma man fan laa jëm kan moo may gëm yaay wuyu ma ma ne nga dimbale ma ngay jaay seytaane fit bi nga am sax laa la wax yow fit bi nga am bay dem naan da ngay jënd ndaw. yaay danga maa jàngal loolu wala danga maa gis may taxawaalu. yow dimbale ma laa la wax bu yeboo nga jooy ba jooy dëtt man faalewu ma la gis nga li nga def nii lijjantiwu ma ko sax ñàkk fayda bu bëgg a de yow sunu askan wi yëpp nga yàq ko jaratuma dara ci dëkk bi laa la wax ndax yow lijjantiwu ma la. ci jaay affaire saytaane ñàkk jom ñàkk fayda <laughs> ki jam xamoon naa ne dinañ daje. daje nañ. sa kër laa jógee. loolu di sama gaale. Eh, duun may wax da ngay noppi noppi ba ma pare te su may wax xoolal déglu ma ba ma pare sa gémmiñ bi nag ma ko tëjal ah yow yaay imbécile yow yaay mbaam yow yaay góor bu bon yow nit nga yow est-ce que jigéen la jur góor ana góor góor di xaaral sutura jigéen yow jee war nga ko def sa lu bon nga suturaal ko yow yaa bon yow ni ngay gua mbëggeel. kon yéen a ngi eh, doog koo bëgg. yéen a ngi doog a yëg métti di xool yéen ak yéen ngeen ma def man ak yéen xale ba mag ngeen war ma naan ay néeg nii

sa naqar wii nga jël def ko ci sa xol bi nga dindi ko njaay nga lekk naan yow jeewo jarul lii jeewo jaralu ma man mba toog sax di bañ a lekk mbaamee bañ a naan kon nag yow mii damaa bëgg nga lekk naan loolu rek laa bëgg jeewo jaru ko day jaar nan lay lekke ak nan laay naane ah ndax jeewo jëf jii bu ma def jën lañ koy def jën ndey lañ koy def muy lekk ka naan ah amul fenn yow dafa dagg sama xol bi waaye bu la ci dara naqari man mii bàjjanam dina ko lijjanti ba mu normal jeewoo dinaa ko yekk mu siiba moo xam ni du ko fàtte ba yomal xiyaamati ndax nag ñun xamuñu gàcce xajuñu ci gàcce te jeewoo dafa yàq suñu xeet wi jéewo daf ñoo gàcceel ma waa Ndeye Ndiaye. Hmm. jéewo mi bu ma doxee ba dajeeg yaayam wala ma gis yaayam mu ne ma ana jéewo ma ne ko maye naa ko mu sëyi waaye dafa tëdd amul ndaw googu gàcce. googu gàcce fan laa koy yennee koo Ndeye njaay xale yi daal ki nga gën a wóoru daal moo lay. Ndeye Ndiaye jéewo na ma. waaye yow la toroxal. waaye bu boobaa yaayam day xam ne bonoo te yar nga ko fi nga ko yaakaar defe naa naqar bi nga am man bi ma am ko ëpp man mii bàjjanam àddina bépp xam ma jaaw def ma jëfin wi ma def dinaa ko yàq loo xam ne ba mu juddoo ba tey du ko fàtte mukk damaa bëgg nag na sa xol sedd yow bul amati dara la naqari lekkal maneh loolu laa lay laaj xool ma nga wax ak man sama gàcce keroog gi yàlla bu ma ko gis yomb yombal ya xiyam yow laay waxal tontu ma jeewoo lii lan la. ajal lan nga bëgg ma wax la lan laa lay wax. yow keroog lii ñu def digg dëkk bii ndaw si jàkkaarloog yow wax la li mu la wax. ajal lan rek nga bëgg ma wax la. Hmm. <laughs> bàjjen ñi ñëw fii keroog dama leen a xam xawma leen musuma leen a gis li ma la waxoon keroog li laa lay waxaat tey bàjjen man musuma xam beneen góor à part sama jëkkër dangay fen jéemoo dangay fen waxoo dëgg jéemu ki kàcce man fan laa koy waxee yow toroxal nga suñu askan jéemoo toroxal nga ma man mii sax bàjjen jéewu lii ba nga xamee ba ma la woowee laaj la mënoon nga ma ne bàjjen nii la demee ak nii la demee jeewa ñun xamuñu gàcce jeewa sa juróom-ñaar fukki maam yi nga am yëpp xamuñu gàcce te gàcceel nga ñu jeewa gàcceel nga ñu te gi gàcce duma la baal ba yomal xiyaamati jeewa ñun xamuñu ay jënd ndaw nan la mën a ah man de man man la gën a jaaxal man mii man la gën a jaaxal di neex du di ñuy ambiance su ma tullee ba ndax dem ba taj si mbaxal war a fas ci mbaxal gi ndaw si fële ci ca làng ka ñoom fële déglu lépp ñu ne ñu ngi lay déglu mu ndaw bi jaayoon la sama jël subhanallah jaay jaay ndaw yow ma bett na ma lool lool lool lool lool lool yow bett na ma. ndaw soosu sa ndaw la kan la. waaye yow su ma ko xamoon mu neex xaw ma ndaw sa xaw ma kuy ndeyam xaw ma kuy bàyyam xaw ma fu ñu cosaanoo waaye lu wér te wér mooy moog yow xamante ne bu baax a baax a baax a baax ndax moog yow ñoo séq li ñuy séq mu ñëw di jël si xaalisam jaay na ko ndaw ba de jox ko xaalisam. góor waaye ma wax ni li ma wax nii jommal na jaaxal na ma. nit ñëw sama xew jabar yàq xew mi. naan da maa jaay ndaw di sas ay wax. a koo jaay de. garwaay da koo jaay man maa dem seq ak sama jabar. Ah. man maa xam la fa am ak la fa am. li mu wax ni dégg ko fenn. ah xoran xoran teyel de de jamono daa dox de jamono daa dox de couleur yére sax mën nañu ko saan def ko beneen ñu ne nga ñëw ñu ne lii bi fi nekkoon la fekk dëgg jamono dafa dox te pharmacie yii mu ngi mu ngi mu ngi lëmbee réew mi dégg lu ne mën naa xew. jeewoon na moom comme xale la da daan fit téye ci ay mbiram téye ci ay mbiri jeewoon nag man nag lii laa lay xamal ci moom de ndax xale bu ndaw am fit bu toll nii kii bu naxee defal leneen dul lii nu jëlee ndaw amoon ndaw na waxtaan ak yow comme bëgg nga koy bëgg na la waxtaan lañ déggoo ci ay kàddu waaye dem jëndi ndaw ah fu mu moom fi nga. lenn xamal naa la kooku amul ak affaire man mii la amal affaire ah. dinaa ko lijjanti ba mu ne cocc. Ah. te nag Garawaay. Ah. matoo li nga doon de. ah déet man naa li ma doon de. matoo kilifa man naa li ma doon de. ndax heure bi war naa fekk nit ndaw si mu ñàkk bakkanam. ñàkk bakkanam maa ngi dem si man la ma ma jaral loolu yow jigéen jaral la jaral na la nga nga faat bakkan jigéen jigéen da koo jar ah yow jéewa daa daa daa daa yóbbu sa xel bi jéewa dafa yóbbu sa xel bi ndax mu laan nax ba pare bëgg nga bëgg ñoo bëgg ñoo nax nit mu kenn mu ñoo nax. ndax man mii si xas sama joor xam naa la ma jaral. Eh, xamoo dara yow. xam naa la ma jaral man xamoo xamoo xamoo. waaye nag xamoo xelum dof mi nga yor moo tax doo mas a egg doo mas a avancé toogal fi nga toog rek mais lii man danaa wax lu jël sa bopp dof nga de bu dee xammeewo jaañ xammeewo joor ñooñu nax nax la xale bu ndaw ñëw ñëw jàpp la nax la ma nga ba ba ba ma nga ba saxel ma tëb ah ñëw ñëw ñëw di jëndi ay ndaw ñu ñëw eh, jox la nga gëm nga gëm ko kii xam mu bu ñëw nee la uh, waxtaan la yow nee ko xam na bëgg a dégg yi ñaar eh, ndomba dégg kii na la wax li fi am rek waaye daa jar jëndi ndaw loo jënd ay ndaw ah jënd jënd ndaw jaru jaay jaru jaru jënd mu naturel bee gën Quran ñun de dañ lay massaw rek dëgg yàlla dafa metti man de gis nga sama bët yi ba léegi jaaruma ci nekk lekk mu dugg nag defatuma ko te xam nga man dama laa xaw a ñeewanta <laughs> billaay xuraan na fi lu mu la wax dëgg la de man de dëgg fa yàlla dama wasaruus xam gàcce goo xamante ne nii waaye nag duma ko balaamee xale yee mel noonu rek ma ah nag oto buy dem nga dugal ci a ah a def lan la def mag. waaw yéen moom yéen man yéen damaa woo def dinaay dama leen woo bëgg a waxtaan wax wala yéen ma woo. yaa kenn ku nekk wax. laa iya yërëm rek baax na dégg naa seen wax lii ngeen wax nag dégg ma wax si taan yi maanaam gëmu leen li ngeen wax ni waaye li ko guddal li ko gàttal daal mooy lii xew ci kër gi laa bu woon mu di ko waxataane boo kenn jëwee yow nag ili xelal rek daal dem kër yaay dama koy jëliwaat mu ñëw egg si waat ci kër gi toog sëy sëyam bii te kenn ku ko ci yéen ñi ah su ma la génnee kër gi yow la. ah <laughs> waxul eh, ah loolu noonu amul génn kër gi. égal du fi am fii kenn du fi génn. moo fi ma ne la moo a ah. ah ñuy seddal rek ngay tàngal moo fi def lu jar ñu wax ko. na fi moo fi amul ndaw bi ku ko def. ku ko dégg la bëgg kon jeex na moo du ko tudd. ay ba ma. ci yow. moom mi jaaxaat ci saw ma. gis di téegal mooy lupp borom lu boy jeew ci kër non da ngay nax eh, gis nga li ngeen ubbee ci waxtaan bi nekkul lu ngeen gëm li ngeen gëm na yéen ko doog wax nii waaye naa ne xamale sutura ba baax de sutura lépp lu de sutura baax ndax dama leen <laughs> xam nga ñun def ñu sutura mais yéen jigéen xalaatu leen ko seen àdduna xaawi sutura wax ji bon seen jëkkër ba ngeen boo galaas ngeen génn sama jëkkër ngeen moon a galaas def na nii dafa bon cagal la da doon doxaan jàpp naa ko amul sutura mais ñun yàgg na leen a sutura maa ngi dama leen a sutura kan nga kër gi ah ah du ñëpp du ñëpp impact de ah du ñëpp impact de sutura laa sàng nag bàyyi mu sedd comme que nag am na ñoo xam ñëw nañ fi te indaale wuñ dara ñu xóot hmm? nëpp teen waxuma kon bu leen wax leneen Futura ada. Nem dia? Kini fanganak. Nem dia? Kini fanganak. Ah wah. Jagar kini fanga. Ah bumba. Masya dengan dah ngatek saya jeng nak. Man mom, nani bagai ko ni mom, deg deg deg. Troisième bokut. Ya, ya, man ba may dik man xam nga ni man mi dama lekkon wari gar bu yag teud ci teud ci jëk yi sey ci sey yu jëk yi togg añ ci añu jëk yi man mom xam na bokuma ci. Prip dip lolay prip dip. Ah prip dip la na ko. Waaw ndax kër gi prip dip amon na fi. Waaw. <laughs> Ah. man jeeg gi ma ci ñoo xamante met ah. ndax ñëw na ci kër gi lu xóot la teen ma sutural xoola 5 heures sama bàjjen yëkkati ma 5 heures ah yaay wax de man ah. <laughs> mi sama bàjjen yëkkati ma fis dell nekk xale bu ndaw xam nga li ma la wax dafoo dina jàpp la yow ci man nga njëkk te ngeen may <laughs> man mu gudd ak mu <laughs> wax kër gi am na ñu fi ñëw nu xóot. tëj nga kër gi rek xoolal mi ngi rek. ah. dama si kër laa koy waxal. aywa moom seen kër man sa tëdd teel na la ay kër fang daaj tax ma tëdd ak sama baaj ma këti ma cinq heures. waxtaan leen daal yéen ñaar ñu ko jubóon nag ndax xam naa ne nag xam nga nag dafa neex sax nag ndax ñetti jàpp sa loxo yooyu jéeg di di tiitaroo moom xam naa ne dalul leen ndax seen nijaay wax baa dee jàpp sa loxo jébbal na sa jëkkër seen jëkkër jim leen jox ah moo wax nag. yow demal yow moom saytaane nga yow na ma am ndaw yow. yaa fi mu eh, ku la yëkkati nga ne. yow sama bàjjen. <laughs> gisuma ko woon de fekkuma fi di. nu mu ma ma ne <laughs> ah fekkuma fi de. yow waxam moom sa bos leeruma. waaye man moom <laughs> bañ ma yëkkatee. keroog ñëw na woo nañ la. ndax fi sëgëm sama bos moo la leer. Ah, sama sa bos ah la de. yow ah ma ne yow ma foota dee. ah woo yow ci kër gi <laughs> woo nañ la. ba jënd ma yëg ruy ba ma ruy ba ma naan yaa ma ko jox. man mii yaa ma ruy yaa ma suppal. <laughs> sa tëdd fekkew ma ko. fekkew ma ko de. waaw waaw waaw leeru ma ci. Ah, ma ne la fekkew ma ko waaye yow moom sama tëdd. fekke nga ko ndax ruy ba ma naan yaa ko jox supp ba yaa ko jox. dëgg la laax yaa ma sama na ma yëkkati woo la nga ñëw taxaw yaa ma jox ruy ba ñu ne deete waaye nga toggal ma suuf boole ceeb bi ma dàmpal samay